ñoo ngi nuyu yéen ñëpp di leen si si seen tur ak seen sant ah, convention bi nga xam ne nii tey jii moom laa nar def ak sama naataango bi nga xam ne nii mooy ministre de la jeunesse des sports et de la culture ah, convention la boo xam ne nii dañ ko dañ ko def pour pour jàppale xale yi xale yu ndaw yi góor yi ak yu jigéen yi pour pour pour jox leen ay opportunité ci agriculture Ah, suñu dëkk mi ngi importé presque mille soixante dix milliards de francs CFA ceeb dawlin blé mboq ah, ak ah, suukar fruits cent mille soixante dix milliards saa yoo ko rek moom mooy exporté nga ay job ay emploi tax na ba ministère de la jeunesse ak ministère euh, ministère euh, de la jeunesse des sports et de la culture ak ministère euh, euh, agriculture souveraineté alimentaire ak euh, élevage bëgg a lëkkaloo créer ay opportunités pour pour pour pour jeunes lii nag dafay dafay dafa dafa dafa méngoo politique bi nga xam ne nii son excellence président de la République ak premier ministre bi ak gouvernement bu bees bi décider nañ ko pour jàppale xale yi ak ndaw ñi pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu am ay ay ay ay liggéey. Euh, euh, partenariat bi ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy def euh, pour pour digitaliser parce que léegi xale yi xarañ nañ ci informatique de xarañ boo xam ne bëgg nañu ñu ñu ñu utiliser informatique bi pour moderniser agriculture bi ak élevage bi bëgg nañoo créer aussi ay centre de de de service agricole centre de mécanisation tey jii bëgg nañu li ñuy mébét mooy fépp fu baykat nekk.

Euh, coordonnées GPS ya fa nek étude de sol bi def nañ ko lañ fa wara bay xam nañ ko kañ kañ euh, ku ko fay bay xam nañ ko nga xam ne euh, ministère de la jeunesse ak ministère agriculture dana mën a lëkkaloo ak yeneen ministères yi nga xam ne mooy ministère de commerce pour ñu mën a def planification bi kenn mën kenn mënta wax mbay te waxoo santé des sols aujourd'hui euh, ministère de la jeunesse le ministère de l'Agriculture ont bëgg un euh, partenariat pour xalé yi jàppale ñu def campagne nationale de phosphatage pour nous mettre a de suuf Les pays sont dans les 557 communes du Sénégal amul y commune bi nga xamné ni euh, déchets municipaux yi leen di di valoriser bëgg nañu lancer des des des campagne moom mooy permettre 557 euh, communes ñu euh, euh, valoriser ces déchets composter ko ba dem ba suñu mébét mooy ñu dem bay am ay usine engrais organo nga on va dafay nekk benn économie circulaire campagne bi nga xam ne nii nag suñu ñaari ministères yi ñoo ngi koy def bëgg nañ ci aussi xale yi jàppale ñu ba nga reboiser Sénégal soo demee dëkk tubaab yi da ngay romb ci autoroute yi mu vert nga romb ci dëkk yi mu vert nga romb ci capital yi mu vert nga dem ci àll bi mu vert bëgg nañu lancer benn campagne un citoyen un arbre vous imaginez Sénégal dafa am dix-huit millions de personnes imaginez chaque année benn nit bu nekk euh, jëmbatoon benn garab suñ ko defoon ñaari at ñaari at ba ñetti at dinañ gis ne dëkk bi dina naat te plus ngay am garab yu bëri plus taw bi di gën a ñëw donc loolu yëpp dafay dafay tax suñu dëkk bi gën a développé Euh, jeune ju diaspora bi aussi partenariat initiative pour yi pour pour pour pour pour importation alimentation bi wàññeeku nañ ci aussi jeune diaspora bi. ñi aussi Sénégal kenn a wax euh, développement donc euh, partenariat bi dinañ dimension moo xam jigéen ñi nga ñi nekk ci ñaay bi la moo xam jigéen ñi nekk dans la famille dans le monde rural ñoom ñëpp bëgg nañu leen si jàppale. suñu suñu mbokk yi nga xam ne nii nag euh, caabi da leen a fara ginnaaw aussi yàlla leen yàlla euh, euh, dimbale ba ñu ba ba ñu dellu si seen njaboot ñooñu aussi bëgg ne bëgg bëgg leen utal ay ferme yoo xam ne nii au lieu ñuy nekk si kaso bi ñu leen di tëj ñu tëdd ko jóg bëgg nañoo indi bëgg nañoo créer ay ay ay yoo xam ne nii. lañuy bay ñoo ngi leen di ñom ñoom euh, ci prison yooyu ñom di lañ ko ci dundé mais aussi comme di ngeen comme li ngeen xam Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ni nii euh, seen université yi euh, dañuy am ay restaurant universitaire peut-être aussi étudiants yi mën nañoo bay mais détenus yi aussi mën nañoo bay te li ñu fay li ñu fay ceeb yi li ñu fay récolté mën nañ ci di dundal détenus yi mën nañ ci aussi di dundal université yi loolu yëpp ay ay ay initiative la yoo xam ne nii bëgg nañ ko jël donc ci tënk daal mooy que ni euh, euh, euh, ministère de de de de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l' élevage ak ministère de la jeunesse bëgg nañoo lëkkaloo uti jox opportunité yi nga xam ne nii opportunité d' emploi yi nga xam ne nii yu baree baree bare la yoo xam ne mën nañoo leen jële ci ci agriculture bi élevage bi ak agro industrie bi pour pour pour pour pour si nga xam ne lépp loo xam ne Sénégal mi ngi koy mi ngi koy dundee ñu ko fiy bàyyee. ci ci ci ci ci tënk loolu mooy loolu moo ko nekkoon résumé. je vous remercie jërëjëf benn benn gis naa ne yow yaa ma gën a dégg kàllaama kot ci biir waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp képp ku fi teew ci turam ak santam di jaajëfal ñëpp di jiital ci nuyoo bi sama nattaango sama collègue mooy monsieur le ministre de l'agriculture docteur Mabouba Diagne. mi nga xamante ne kenn su ko présenté sénégalais yi ndaxte yàgg na yëngatu ci wàllum mbéy balaa moo dugg ci biir gouvernement Sénégal tey jii nag ndaje bi tey dañ fi daje pour xaatim li nga xamante ne moom lañu ñu tuddee protocole d'accord entre moom ministère bu muy diriger ak man mii ñu dënk ndaw ñi sport ak culture ñu nag ko xaatim pour teg li nga xamante ne mooy vacances agricoles nous avons accompagné le programme agricole Nous avons xamante son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom décliné division vision orientation stratégique Nous avons le chef du gouvernement le premier ministre Ousmane Sonko nous avons fait ren ñu paradigme transformé nous voulons orienter notre action action de la jeunesse vers le programme de souveraineté alimentaire parce que ne donc des vacances agricoles Nous gis ne que ndaw ñi fi Le problème yi ñu jànkonteel bëri na bëri na nag ay programme qui fi faits. a Mais mais programme yooyu ba ñu que nous jox ñu leng yi def Nous évaluation yi gis nañ programme yi impacté wu lu bëri ci doxal ci nous ndaw terewut ndaw ñi jël gaal terewut ndaw ñi ñàkk espoir ñàkk pexe ci réew mi taxul ndaw ñi itamit am liggéey gannaaw ñun suñu réew mi ñun dañoo toll ci tabax ci defar ko te booy wax tabax réew dafa am loo xamante ne benn secteur fa nga war a mooy la ñuy wax le secteur primaire du ma économiste la du ma ingénieur agronome waaye dana ak nañu jàngal ci l'école yi ci géographie humaine

Pour développement d'industrie, pour faut am des matières à transformer. Ça m'a entendu, monsieur le ministre de l'Agriculture, en tant que tu vas me voir. Sénégal, l'homme importé, rien. Ci, lek, muy walum légumes, muy walum fruits, té loolu war nañ ko mën a béyee ci si dëkk bi ndaxte suuf saa ngi fi doole jaa ngi fi xar jaa ngi fi xam-xam jaa ngi fi tuuti gunge kese la laaj ak pas-pas ak pasteur pour ñu mun caa àgg. Nous, mo waral ñun vacances agricoles Nous, ñi ñu école ci yalla suñu borom ñetti accompagner le programme de souveraineté alimentaire té lekk dafa am solo ngeen baal ma gay la ku école dina wax ba du ku wala qualité itamit mu

ñu ngi lay woo nga ñëw fas yéene bokk ci programme bi fas nañu teg am nañu benn plan d'opérationnalisation ba pare pare na dans un premier temps dinañu teg benn plateforme numérique sànq sama naataango fàttali na fàttali na ko digitalisation bi sera au cœur de ce programme dinañ teg benn plateforme bi nga xamante ne ndaw bu mu intéressé programme bi di nga ñëw bindu ci bindu ci ñu xool itamit en fonction des fermes agricoles déjà disponible et selon leur convenance nous devons les leen fay campagne de sensibilisation bi étape une nous ci avec quelques ambassadeurs Parce que nous ñun nañu nous ñun nañu dënk sport culture et les acteurs culturels les acteurs sportifs c'est les ambassadeurs Nous am na ñi nga xamante ne ñu déjà ci am nañu jarul ma lim am na ay sportifs yi nga xamantene ne seen reconversion ñoom ci mbéy mi lañ ko orienté te ñu ci gis seen bopp ñu ci ciy ànd ak ay xale ak ay ndaw ñu bari tamit ci liggéey de même am na ay acteurs culturels des artistes aussi ñoom ñu ngi ci mbéy mi di ci gis seen bopp di ci ànd ak ay ndaw tamit ci liggéey am na itamit ñi nga xamante ne ndaw ñi nekk bitim réew di fa jàngee wala jàngi won ñibbi en quête d'opportunité pour se fixer ici ñom ñep ay ambassadeurs lañu té ñom ñep ci tamit ñu leen di wo ci programme yi né ci gattal monsieur le ministre de l'agriculture ak yéen ñi fi téw vacances agricoles bi vision bu mu lalu pour un Sénégal juste prospère équitable dans une Afrique en progrès et son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Faye

et nous sommes convaincus il faut croire en cette vision croyez en cette vision c'est pas un rêve on peut et on va y arriver il faut croire aux à la vision du président de la République à la vision du premier ministre Ousmane Sonko il faut croire en cette vision et c'est pas un rêve et nous y arriverons avec avec le travail avec l'abnégation avec la volonté avec l'engagement vous avez l'état derrière vous di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen